للمصطفى لي بنى القدوس مدرسة بها يزول الأذى والجهل والكبد asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi maa ngi dikk tey jii ci turu comité de pilotage bi nga xam ne ñoo doon waajal bis bu mag bi nga xamante ne muy bis bi Cheikh Mouhamadoul Mountakha doon ubbi daara ju mag gi muy daara yi sëñ Tuubaa ju mag ji nga xam ne université ak lépp ñu ngi ci biir tàmbale ci daara alxuraan ba ci njàng mu mi doon ko ubbi eh, yàlla suñu boroom defal ñu tawféex mu doon ñu ci liggéeyloo ñu dikk nag ci turu kuréel boobu yëpp nga xam ne eh, dëgg la daara Hizbut Tarqiyyah dafa newoon ci bopp bi waaye ñi ñu ko seqal dafa mel ni koo ci xool danga naan kii de mënuma koo dab mënumaa mel ni moom loolu kon euh, du dara lu dul mbir moo xam ne yàlla suñu borom da koo barkeel Sëriñ Tuubaa it da koo gërëm muy ak cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ñuy jottali ay cant nag mboolem ñi ñu àndaloon liggéey bi euh, lii ci jiitu nag mooy Cheikh Mamadou Mountakha ñoo ngi koy sant ñoo ngi koy sant di ko gërëm ndax tawfeex jii de moo ñu ko may te ni ma ko jàppee mooy euh, la Seexul Xaddim waxoon rek ca ba ñuy liggéey jumaa ji mu ne malayka yi sàkku nañ ci moom ngir defal ko ko liggéeyal ko ko xaalis wala wurus yi ak xóot jinne itam sàkku nañ ko waaye mu ne damaa am ak njaboot ak waa kër yoo xam ne damaa bëgg ñu barkeelu ci ginnaaw jumaa ji Sëriñ tubaab ba ko suñ borom di may loolu àndoon na ca mu liggéeyloo ko euh, njaboot gi Cheikh Mamadou Fadel ubbi ko le 7 juin kon lii nga xam ne tamit ci mbébétu Sëñ Tuubaa la bokkoon Cheikh Mamadou Muntaxa ubbi ko le 6 février di fukki fan ak juróom tamit ci weeru rajab 1444 ci hijriya dafa mel ni day fàttaliwaat bis boobu nga xam ne ci la Cheikh Mamadou Fadal ubbi woon jumaa ji muy bëggug Sëñ Tuubaa bis la boo xam ne képp ku ci doon dara war ngaa sant yàlla te dafa mel ni sax dinga lot ci mën koo sant kem ni mu waree waaye nag ñu xam ne defal nañu tawféex ci biir loolu ñuy jottali cant cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee amul fu mu yem tàmbalee ko ci Cheikh Mamadou Bachir mi nga xam ne moo kàddu sëriñ bi ndax lu ñu ci doon def moo nu ko doon def loo di sant sant itam si Ahmadou Badawi moom mi nga xam ne dañ ko jiital ci mu jàmmaw bi nga xam ne mooy complexe bi euh, neex naa àndal ndax ak taalibeem ak tamit ak dogoom ak tamit nangoo sonn ngir liggéey sëñ Tuubaa te sunu kilifa la sunu sang la di ko sant bu wér di sant itam mboolem waa Rawdu Rayaahiin ci biir loolu it ñu xam ne euh, bis la boo xamante ne balaa ñuy tudd ñi ñu ko àndaloon sax sunu bokki bay Faal yi la ñuy tudd ndax euh, njabootu sëñ am di mbenda sëñ am di Moodu mbenda ñun di gis nañ ne ay royukaay lañu ndax tur yàlla bi lañ nekkee woon di di di ko def waaye kenn du ne lëjël nañ ma fen fa ñu nekkoon lañ ne di tudd yàlla suñu borom xataluñu kenn sonnaluñu kenn te la Sëriñ Tuubaa gën fonk ci lañ nekkoon ci bis bi kon ñooñu amee nañ leen ak cant ndax ñoo defar lépp ñoo yëwénal lépp la ca toppit ñuy sant mbooleem ñi nga xam ne euh, ñoo ci jàpp kàddug sëriñ bi nag ñëpp dégg nañ ko sant na njabootug sëñ Tuubaa gi sant na mbokki jullit yi sant na ngan ñi gan ñi waaye sant na itam mboolem ku jàpp ci liggéey bi kàddu yi mu jël itam tudd njiital réew mi euh, jottali ko ko ci ak cant Cheikh Mamadou Bachir tamit feddali ko dafa mel ni loolu ñun taalibe sëñ Tuubaa yëpp dugg nañ ci biir ndax kàddu sëriñ bi mooy kàddu gi matale ndax moom la mu xool rek lañu xool ñuy wëlbatiku nag ñun di feddaliwaat suñu laxasaay wax sëñ Muntaxa ne ko radita xan wa radina hanka wala nazalu bis diyadin ka ñun de sant nga dongo yi waaye dongo yi nag ñu ngi laxasaayuwaat fas la yéene sant ci jëf ndax nee nga euh, li weesu ay caaxaan àggalewu ko fa dëgg moo ko indi waaye li des nag mooy li gën a bari kon loolu ñun ginnaaw am nañ lu ñu jomb te defalaguñu sëñ Tuubaa lu ñu mën dinañ laxasaayu laxasaayuwaat sëñ Habibu mi nga xam ne moo jiite Tuubaa ca kanam lam ca def ak na mu waxee waxaale na taalibe yëpp. nga xam ne kenn ku ne jaajuwaat na la nga doon jëf mu mel ni musoo jëf dara loolu kon bokk na ci kàddu yi nga xam ne moom lay njëkkee di sant nag waa Muxaddamatul Xidma ndax si affaire njabootam ñoo ànd njëlbeen gi ba keroog liggéey bi ñu koy ñu ñu ñu koy sottal lépp ñoo ko ànd ci biir ak ci bisi nga jël daayira wilaaya euh, moom ñoom itam toggal nañu sëriñ bi indi nañ seen i jumtuwaay ànd nañu itam ci dalal gan ñi ak taxawu leen kon sëñ Ousmane ak sëñ Bass Ñaan ñu leen di yóbbante ak cant gu jëm ci mbooloo mi yëpp kenn desul euh, am na itam cant goo xam ne dañ koy beral Touba ci kanam ndax Touba ci kanam ku ne xam na ne njëlbeen gi bi ñu tàmbalee du seeni juntuwaay du seen alal lépp lañu booleendoo ngir bis bi mel na mu war a mel loolu kon war nañ koo wax war nañ koo jottali ngir ñëpp maase ci xam ko Euh, boo jëlee ay bàyyil xadim bañ tolloo ci di loué ay baas te gisuñu sax baas yu ñu loué ñoom dañu indi baas yoo xam ne dañ ne dara waru leen ci laaju ñu ci dara te doon na loo xam ne keral na ci mbooloo mi loo xam ne lu yaatoo yaatu la loolu tamit ñu ngi sant sant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem di sañ sant nag koo xam ne sunu kilifa la see am satu moom lu mu dégg ne dongo yaa ngi ci dina ko ànd ak ñoom ni mu koy defee ci bisi xasida yi kon bii itam njabootam muy kuréelu xasida yi njabootam muy ñi nga xam ne ñoo doon ànd ci wàllu protocole bi ak taxawu gan ñi lépp def na ko ba noppi jël alalam def ci bis bi kon loolu war nañ koo jottali ba ñëpp dégg ko euh, sëñ maam Thierno moom ñoo ngi koy beral ak cant ndax moom sëriñ bee koy liggéeyloo sur le plan technique muy coordonné lépp lu jëm ci liggéey yi waaye nag ak woyafam ak fexe ba lu ñu soxlawoo mu jàpp ci loolu gis nañ ko euh, woyef woyefal na lu bari ci li ñu doon def noo ko ciy sant di beral itam ak cant nag euh, si Abdou Lahad Ka ndax moom sant nañ ko en tant que maire mais sant nañ ko en tant que président wu Touba Matériaux ci wàllu logistique am ci wàllu wërsëgam ba ci basan yoo xam ne sax nit ñi dañ ciy toog da ciy jënd lim bu bari ak ku mel ni sëñ Mbaye Touré ak ñeneen ak ñeneen jàppale ñu ba fu waay mën a ne it yëg nga ne nekkoo ci xat-xat loolu ñu ngi cee ñu leen ci jottali ak cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem am na nag lu ñu war itam ci cant goo xam ne dañ may may ma beral ko euh, kuréel bi tudd tariatul muridiya sëñ sëñ sëñ sëñ Muntaxa moo leen ko tuddee sëñ Mbay Saar jiite ko waaye dañu ñoo xam ne dañoo effacé man yëg naa ci sax keroog xat na ba newuma ci bunt waaye yëg naa ci ñoo xam ne sax seen dugg ba mën a toog nañu war a toogee yombewul woon noonu waaye taxul ñu feeñal ci lenn lu dul dañuy xool fa jàppandi rek ñu dem toog fa te yi ñoo xamante ne ay milliards la ñu dajale def ko ci ci ci la leen sëñ bi doon liggéeyloo loolu nag war nañ koo seere ndax su ma tuddee lenn ci seen jëwriñ yi rek dafa mel ni tudd naa ñëpp. boo jëlee ku mel ni sëñ Abdoulaye Dia Séniko ku mel ni sëñ Cheikh Mbacke Seye wala nga jël ku mel ni alaaji sëriñ Seck ak tamit ku mel ni sëñ Pape Fall ami boutique wala nga jël euh, ku mel ni sëriñ Mbuub wala nga jël Babacar Ngom Sédima euh, ñooñu ñëpp mënuma leen a jeexal waaye dama bëgg wane rek ne nit mën naa doon homme d'affaires doon industriel te du taxawee nii ñu taxawee ñoom ginnaaw nag taxawee nañ nii kon loolu rek a tax ñuy sant ñun amul leneen loolu nu ci ñor lu donc yi nañu wuyu sëriñ bi ci bisam ci liggéeyam bi te laxasaayu kon loolu tamit dañ ma bëggoon ñu xam ne euh, war naa ko wax ndax dafay lu ñu seq euh, ñu defee ko defi du rafet di yëgle itam ne bari na mbooloo yoo xam ne mobiliser nañu presse bi ni ñu mobiliser woo bokk pas-pas moo ko waral ndax bis boo xamante ne une coordination boo xam ne dafa dafa dafa dafa dafa pointu ci wàllu fexe ba yëkkateendoo dóorandoo xàcceendoo dóorandoo loolu ni ko presse bi defee rafet na ba ci presse en ligne bi ak li nga xam ne mooy média yi loolu nag ak cant war na ci ak ñi nga xam ne nag dañoo togg indi wala ñuy defar kafe muy ëllu kafe wala ñu mel ni euh, ñoo xamante tamit dañoo dañoo am seen alal indi ko ku mel ni maître Madické Niang moom lu ñuy def lu mel nii dana dajale alalam indi ceeb nag lépp ànd ak sëriñ bi ci li xam ne mooy jëf ji loolu war nañ ko tudd. bu dee waa Daara Hizbut Tarqiyyah moom euh, kàddu yi nga xam ne sëriñ bi wax na ko muy cant gu rëy gi nga xam ne jottali na ko dong yi jottali ko njabootu sëriñ bi euh, loolu dafa mel ni doy nañu sëkk wëlef leneen ndax sunu mbokki Baay Faal bu ñu xoolee ci ñoom ñu wéttalikoo turu yàlla ne fa ñu ne sonaluñ kenn. nun tamit xasida yi ñu doon yëkkati nga xam ne li maahin basirin xasida ak mawaahibu xasida ak busraala naa ña ko doon jàng ëpp na junniy nit yoo xamante ne ñëpp ànd ak yar ak teggin di ko def loolu lum nu mayul séntuwuñu ko ci leneen kon loolu ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci tour comité de pilotage bi leen wan ne loolu rek mooy li am solo euh, jéemu leen a dem di xat-xatloo fa kilifa yi ne ak defe ne foofee moo leen di may dara fa fa ndigal rek moo am moo am njëriñ ci nun loolu jërë ngeen jëf ci jërë ngeen jëf ci bi ngeen ko xamee euh, yal na loolu sax ci nun ba li nuy wut teeg ëllëg mu mën ñoo yomb waaw kon su ma ko toppee du mën a matale ñi ma tuddul damay ñaan ñu dëgërloo kàddug sëriñ bi mooy cant ak ngërëm cant bi gii xam ne sëriñ bi sant na ko taalibe yi nit dund na ba am junni at te taxul mu mën koo am te di ko wut ndax sëñ Muntaxa de ab denc la woon boo xam ne ci sëriñ Tuubaa la tàmbalee ñu di ko denc ba mu agsi ñu teg ko ci loxoom mu ne kaay ma ànd ko yéen loolu nag ku mu doyul ba nga yittewoo ñu tudd faw sa tur dina indi jafe-jafe kon dama doon def loo xam ne rek aada woon nañ koo def ci sant waaye nañ xam ne lott naa ci matale ko xaara midaadi yi xaara fuwaadi yi an madhihaadi yi lil buddalaay fa kay fa ahwi madhan li muhyi wal madhu yi lil uqalaa'i euh, ginnaaw cantu sëriñ bi ñun xam nañ ne am na ci loo xamante ne suñu wàllu bopp la ndax bi ñu sëñ Mamadou Bachir booleeg gouverneur yëg nañ ne ministre de l'intérieur muy sëñ Antoine Diome euh, moo ci jëkk jàpp ngir lépp yomb mobilisation wu commandement territorial bi moo ci jëkk jëf nga jël le gouverneur le préfet le sous-préfet ak mboolem chef de service bàyyiwuñu benn du OFOR du waa Sénélec du UCG du district sanitaire bi du waa service d'hygiène du ñëpp ñoo mobiliser ànd ak ñun ngir bés bi yéwén ak force de l'ordre bi kon defe naa loolu tamit ak cant war na ci goo xam ne amul fu mu yem euh, li ci des it mooy gis ngeen dispositif de sonorisation bi gis ngeen écran géant yi ndax écran yi am na ci. yu bëri yoo xamante ne niñ ko mobiliser ay bokki taalibe rek ko def ku mel ni sëñ Ali Mané saa suñ ko soxlaa mu jëf ci nga jël li nga xam ne sonorisation la tamit daayira yi nga xam ne ñoo yor ay sono dañoo boole seen bopp loolu lépp ñu def ko muy jënn jëf kon loolu ak cant war na ci kon dal li mën a wax mooy jëf ji taalibe yëpp ngi ci biir waaye cant gi itam taalibe yëpp a ngi ci biir bokk jullit yëpp a ngi ci biir yàlla na doon loo xam ne yàgg nañu yàgg ko ànd ak Cheikh Mamadou Muntaxa ba dem ba àdduna sépp xam ne daara ji delloosi na daarul hijra muy université bu mag bi rasulullah sallallahu alayhi wasallam defoon Madinatu Munawara ñu xam ne ku dem foofee xam ne foofay Madinatu Munawara waaye te yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga fa waaye fii itam nga xam ne xadimu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam moo fi ne te suñu borom defal na ko mu doon ki nga xam ne mooy asna li mu defal yonent bi sallallahu alayhi wasallam keneen mënu ko yàlla nañ ci daje dajeeg raafaxtu fi xidmati yi tawfiqa xaalixina almulhimil xayri maa il jahli wal alami bilmustafani banal quddus madrasatan biha yasul al asa wal jahlu wal kabadu